Raja biram mbisin seen waaw waaw biram a ngi accéléré combat bi rajaxe ngi taxaw ci garam cukup ko déglu rek dara xewagul ba léegi cey ndeysaan poids bu mel nii gëj na ci Kaolack Ndangaan lii mama Ndeye Fatou rek ko mën fii ci public bi wuy massivement waaw waaw Biram Mbissine Radiakhé Toubacouta Sandré Touba daw na génne ko Touba deuxième avertissement Sandré Radiakhé Toubacouta yit Radiakhé Toubacouta Radiakhé Biram Mbissine eh, hee combat bi métti na Radiakhé accéléré na ko de luy xew Ah! Radiakhé Birame Mbissine Sène Toubacouta centre arbitre na soufflé a combat na waaw waaw bo ndiik dara jega fule centre Toubacouta waaw waaw Touba ko Touba da kay génne wala xew lu xew lu xew Touba génne na ko trois fois luy xew luy xew luy xew ah arbitre disqualifié na Sandré Touba nee na daa am doole génn na ko par décision arbitre Touba na dafa am doole wax dëgg fa yàlla am nga doole de mbër imposé na ko force génne ko saako yi ba ñetti yoon ñu ñëwaat arbitre arrêté combat bi joxe victoire waaw waaw nee na caabi moo ko yor tey de. Sër Rajaxe. waaw waaw. Ndeye Fatou leyinde ale sundik nere mbokatel no aye e ndañ gojof yande sadatene jattewo ye rajaxe solna ko naax lu biram bisin nar rajaxe bu ko wallaay ndeysaan ogatel no sire gojow yande saɗote rajate cekene jomi jowa meke biram bisin sen rajaxe nda demi final poids laissé woɗa payo wala xewal bu njaafat waaw waaw danda bu demi-finale poids léger daga nda quart de finale lañ noyo xo mata yoqa bo ndik ndeer rajaxe fa biram mbisin sen avertissement jega fule dara jega fule anda premier round anda ko numtuwid waaw waaw wo deuxième round fe waaw a fiyet ke yoqna taane ka mayate waaw waaw Abo Sarr Diassy Peulh wa denoɗa pa demi final poids léger de cey ndeysaan njool ne Baye Diouf a dugo koor fa ab ma noona e cey ndeysaan Biram Mbissine Sene Radiakhé Birame Mbissine Sène am na avertissement loolu wóorul loolu wóorul ndax léegi temps bi jeex Birame Mbissine avertissement boobu arrangé wu la mu jeexee ci làmbu temps bi su jeexee dañ lay waaw mu ngi bëgg a daw jël rajaxe sol na ko naax lu mu takk na ko wetu na ko luy xew luy xew rajaxe takk na ko tegal na ko 16 rajaxe daan na bisin rajaxe nee na am doole rajaxe daan na bisin cey ndeysaan eh eh kon ko nee na ko 5 rajaxe nee na ko 6 waa de bisin kay leeral gëral leeral eh eh